mbokkam jóg na ay mbokkam jóg taxaw ca ñu jàppale ko mhm. ay Ahmed ay dara ñoom ñëpp ay Malick Gakou nañu jóg il était de Guédiawaye na ñëpp jóg quoi parce que mhm. soxna si moom ci ñi ñu gën a yàgg ci ñi ñu jàppoon ci la bokk mhm. man kaa man naka jekk man dama ci bàyyi xel quoi mais moom actuellement ci ñi gën a yàgg ci prison bi ci la bokk vraiment nañ ko dimbali quoi jigéen la te vraiment am na yoo xam ne tamit mooy loolu fi mu nii ki ndey mbili ji yor réew mi nii tal affaire yi ci boppam da koo dépassé ba nga xam ne fi mu nii bu ñu gaaw a jóg maanaam on mooy loolu quoi nañ ko dimbali quoi na nit ñi taxaw ñu bàyyi ko quoi soxna soosu vraiment nañ ko bàyyi daal waaw bi ci des itam Macky Sall comme li ñu woote fële tamit wax dëgg yàlla moom euh, nañ ko déglu rek ba xam lu muy def nañ ko déglu ba xam li muy def waaye daal li am solo daal lii lépp xam nga lu ñu ko yóbbee waaw allo. Hmm. ñu ngi lay dégg yow rek dañuy déglu ku baax. waaw situation Sénégal bi coow lu bari léegi lii yëpp xam nga luñ ko yóbboo falsifier suñu histoire moo ñu yóbbee moo ñu yóbbee yii yëpp moo ñu ko teg. Mhm. waaw histoire Sénégal bi ci boppam ñu falsifier ko moo indi lii lépp moo tax nit ñi dañoo réer kenn xamatul kenn fooy kenn xamatul fooy teg sa tànk. Mhm. waaw homme politicien yi bu ñu accédé au pouvoir dañoo jox respect nit ñi. parce que mhm. dañoo bu ñu accédé au pouvoir archives yi archives yi lañ fa lañ fa gis ak li li nit ñi coow ci biti bokkut moo tax du ñu faale kenn. ñi leen ñi daal ñi leen ñi ñu war déglu wala ñu jàpp ne war nañ leen a faale duñu leen faale parce que lii lépp li ñu ko yóbbee mooy histoire au Sénégal bi ñu falsifié moo ñu topp ba andi ñu fii waaw mais nag ki koy war a redresser bis bu génnee rek dina ko redresser incha allah. bu àpp bu jotee bu génnee dina ko redresser. incha allah jërë ngeen jëf. jaajëf 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee rek ngeen daal di ah, mën a dugg wax seen xalaat ci li ñuy waxtaanee dialogue bi ni ki démb la tàmbali ngeen am ci lañ fa jotee tënkee maire Amy Dia miñ ne jamono ji ñu toll nii yaramam nekkaat ci ligne bi di koy jël salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. sama jaar mhm. ñi ngay ziar di bu baax a baax mbokk mi. waaw man la Pape Branco l'avocat du peuple. d'accord Pape ñu ngi lay jëfal bu baax a baax. waaw maam Diarra d'avant tout damay euh, ñaanal euh, soxna Ami Dia. Mhm. yàlla na ko yàlla taxaw defal ko shifaaya. amiin yaa rabbi amiin. yàlla na ko yàlla delloowaat ci ay mbokkam. Mm-hmm. incha allah amiin mm, allah waaw beneen bi nag euh, je rends hommage à l'archevêque mm-hmm. et toute la communauté chrétienne du Sénégal mm-hmm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax bu fekkente ne yàlla dafa dogal ñu ne ci mu réew mu am ñu sañu da taxaw wax dëgg te yàlla sant leen ko mu am ñu ko sañ a taxaw wax ko ñoo ñu di leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di sant di leen gërëm man nag xam naa ne moom comme damay jaay tege dege moom chrétien bu ma ci xam moom maa maa la amel tege dege ci weer wi seen seen kori. <laughs> Badou ah waaw waaw loolu dina am solo loolu moom dina leen dina leen arrangé bu baax a baax. si si ah, am nga si ñoo xam foofu noonu nañ ma contacter. amul problème du ñàkk. Euh, voilà ci euh, ci panel bi am na ay suñuy mbokk ay chrétiens yu fi donc mën ngeen a bàyyi seen numéro. su ko defee Pape Branco moom comme Tiga Dege bokk na ci lu am solo ci pag yi. waaw nee na dina leen ko baaxee incha allah. jeex na tàkk amul benn problème léegi nag man damay ñëw d' ci loi d'amnistie bi nga xamante ne ni moom lañ nar a nekk di waxtaanee nii. te nag li ñu taxoon a jóg doonoon datu élection waaye datu loi d'amnistie fi mu ne nii la ñuy wut la waa ji bëgg ba pare. ah mais ci insister rek. c'est sax dinañ ko euh, parce que ñun datu élection moo ñu yóbbu woon ci dialogue ba waaye moom dafa insister ci datu loi d'amnistie bi. léegi nag moom taxaw na ci thème sax ba ne mercredi. Mm-hmm. dana bind projet de loi ñu yóbbu ko assemblée nationale. Mm-hmm. telle catastrophe moom lan moom nee na terroriste yi ay terroriste koy soxlawuñ ku leen amnistie. déedéet. Mhm. ah. Mhm. waaw léegi bu fekkente ne parce que nag man damay alerter aussi ñenn ñi ah gis nga lii nga xamante ni mu ngi ko bëgg a def ñenn ñi taxaw naan bu ko fi defee nii nangam sangam man na ko mhm. def laay wax xam nga lu tax. bis bu taxawee te defu ko. dana jël lépp taxal ko waa Pastef fexe ay tappaleem ni mu taxalee Ousmane Sonko ba teg seeni luwaat giñ ko euh, domadaa dem dem taxal ko euh, te fële. Euh, kii euh, suppu kànja mhm. noonu la ñuy def ba jël ay doomi jàmbur taxal leen juger leen par force ne ñoom ñoo ko def te defuñu ko te ñoom xam nañ ne li xew ci réew mi ñoom la nervi yi ñoom la tout ñoom la moo tax mu taxaw temm pour voter loi d'amnistie pour mën a euh, seetal ay mbokkam mhm. mais nag amul benn problème na ko voter ndax ñëpp xam nañ après li ci ginnaaw naka la mën a demee waaw li may ñaan kay mooy keneen kiy jël nguur gi ëllëg Mm-hmm. bu fi kii jógee nga xam ne heure bu fi jugee li wétta wóor mooy Sénégal day naat ndax bu fi jógee woon weer wii ñu nekk nii nii sax balaa ñoo am juróomi fan di ngeen gis ay ñax yi jebbi ndax réew mi day commencé di naat <laughs> su boobaa nag li may wax mooy kiy jël réew mi mm-hmm. na fexe même buñ dee laal ci budget Sénégal à cinq cent milliards ñu laal ki ci budget bi dédommagé ñooñu nga xamante nit ñi dañ leen pattal wala ñu laagal leen ak ñu ñu rey mm-hmm. même bu dee mille milliards nañ ko def parce que ñooñu soxum seeni i bakken mënatu la ñëw ñi ñu dagg seen tànk wala seen loxo seen loxo ak seen i tànk mënatu ñëw kon ñooñu ñi nga li nga mën rek mooy nga dédommagé leen. Mm-hmm. te ñëpp xam nañ ne dañ leen tooñ parce que dañoo taxaw li leen constitution may ñu taxaw di ko xeex muy résistance maanaam constitutionnel lañ doon def ñu taxaw faat leen ñenn ñu ñu dagg seen i tànk ñii ñu dagg seeni loxo ñii ñu patal seen i bët. xam nga ne mm-hmm. loolu ñaaw na trop ba tey jii nag xam ngi ñu xam ne ñoom ñoo def li ñuy def lan la ñuy daw bay wut ay loi d'amnistie amul problème nañ ko voté. donc da nga jàpp ni loi d'amnistie nekkul nekkul pour détenus politiques yi pour euh, ay ñoñom ñoo tax wala pour boppam. waaw mais xam nga boo nee loi d'amnistie ay fee la. Mhm. maanaam li xew bërëb sàngam bërëb sàngam ba bërëb sàngam la léegi li ci xew loolu même détenus politiques yi nga xam ne dañ leen seen jotoon a jàpp rek pour téye leen en attendant pour juger leen. ñu ne fee yooyu xewoon yëpp amnistier nañ ko. mais ñooñu mhm. automatiquement dañuy génn. Mhm. parce que loolu dootul am dara luñ ciy topp te li wër te mooy dana ci laaxaale les crimes financière nga xam ne ay genre ñoom maam mbay geek xam nga euh, consoram googu noonu ñi naan pétrole bi moo gaz bi ñooñu ñooñu ñëpp mën nañ leen ci boole. Mm-hmm. cest à mm-hmm. moom arrière am la nekk di defar donc nag nit boo demee bay dem ba pare di tiit mooy que ni y a quelque chose. Mm-hmm. y quelque chose donc moom dafa leeral carte gi lépp kon nag man li may ñaan mooy. billaahi wallaahi taalaahi képp kuy nite nite war ngaa xam ne képp ku tax ci APR ak ku ci taxoon sa carte bu ko laalee na la leer que ne jël nga sa carte dugal ko ci safara barki Seydina Muhammad parce que li xew nii yëpp ñoom la waaw léegi nag man li ma doon bëgg a wax sànq mooy que ni Sénégal maanaam ñun dañu soxla datub élection date boobu nag amul problème mercredi bu demee voté loi am ba pare nañ ko ko fast tragal jeudi vendredi plus tard nañ ko voté loi bi mu bëgg mais dañu bëgg balaa samdi buñ ko ko votélee ba mu jàll samedi nañu jox sunum date comme samedi ba mu ñëwee woon dindi sunum date nañu ko delloo. d'accord nañu ko delloo te bu mu génn balaa fi ak avril ngir laay war a sóoli nit ñi dem campagne def élection yi mu jeex benn yoon moom mu génn réew mi te yàlla rek tax ñun loolu la ñu bëgg nañu xajal. beneen bi nag mooy que ni li may wax ci euh, Macky Sall mooy na def très attention ci amet xalifa Niass. Hmm. ndax gis nga paa yii nii bu deful attention si ñoom billahi wallahi wataalaahi lu ñu lu mu dugg ci musiba wala même bu doon tey jii bakkanam da cee nara des ñoo ñoo koy yóbbee barki Seydina Mouhamed beneen bi may wax nag ci grand Serigne de Dakar parce que man li ma mënul comprendre mooy grand Serigne de Dakar benn la daan doon man bi may nekk xale. ba ni euh, Macky di faloo benn Serigne grand Serigne de Dakar moo doon am ñëpp xam nañ ne ren actuellement Sénégal ñaari grand Serigne da Dakar moo am waa léegi ñaar ñu mënul juboo ci benn siège après ñaar ñooñu ñoo war a taxaw ne ñoom ñoo jubaale Sénégalais yi <laughs> ñii kan lañ yab. dëgg la <laughs> lañ yab. Mm-hmm. non il mm-hmm. faut qu'ils respectent les Sénégalais. Mm-hmm. pas yooyu nañ ñu may jàmm te xam ne ñoom ñoo yàq Sénégal tekki wuñu fi dara. ñoom ñoo ñu tardel parce que yow da ngay toog rek xaar benn espèce yu sées boo xamante ni si cat nga toog kee toog si cat bu weer dee ku ci nekk ñu jël dara xaaf ko jox leen ko. Mm-hmm. ngeen ne yéen ay grande sëriñ ngeen ba pare di xëccoo benn sées mel ni ay ñaari ilimaan yu xëccoo ab jàkk ba di ci rayante ñu li fi xewoon bi ñu leen di fal ñun ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. ñooñu ñooy taxaw ne dañuy réconcilier sénégalais yi amuñu sax place gis nga ñooñu waruñu leen dénk sax douze publique Hmm. toilette publique kenn waru leen ko dénk nañu respecté sénégalais yi encore une fois Macky Sall nag maa ngi lay ñaan ngir daahi war a sóoli nga maytu Ahmed Khalifa Niass moytu ko doo mën a jaxase na ay aayam ciiñ ko ne yàlla moo ko wax yàlla na ko rëbbub yàlla topp hmm. asalaamaaleykum jaajëf euh, Pape Branco ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 donc mën ngeen continuer s'il vous plaît ngeen aimé partager bi euh, su ko defee rek waxtaan bi dina gën a mën a yaatu nit yi dinañ mën a jot seen notification ñëw ànd ak ñun ci waxtaan bi dialogu démb bi la ñuy waxtaanee mère Amy Dia Amiñ jamono ji wér-gu-yaram dameetul noonu ba ñu daal di koy mujjee évacuer foofee ca doon l'hôpital bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko mu sànni génnee xalaatam ci li ñuy waxtaanee. salaamaaleykum mbokk mi. maam Diarra maa ngi lay siyaar bu baax. Cheikh ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax a baax. da nga mu nekk ñu ngi ci jàmm. waaw mhm. ah, dama bëggoon a participer ci kii bi. d'accord ñu ngi lay Diarra euh, xama man bon benn affaire dama xaw a jaaxal quoi ci sénégalais. Mhm. bon bu nit taxawee di def discours. Mhm. lu ci ëpp ci sénégalais yi. liñ ciy consommé vingt pour cent lañ ciy consommé quoi day mel ni ñoom dañuy déglu mais duñu dégg li nit ki di wax quoi. xam mm-hmm. nga ah. parce que dafa am yu bari yoo xamante ne Macky Sall bu koy wax il faut savoir lire sur les lignes quoi xam nga mm-hmm. Mm-hmm. bon Macky bi mu taxawee bon discours bi mu def li lu ci bari man déglu naa ko mais boo xoolee li muy wax lépp da ngay gis ni dafa am lenn lu ko gënoon a ñor ci ndaje bi mu doon woote loi d'amnistie bi rek moo ko ci ñoro mm. dëgg la te maam Diarra boo yaakaaree ne loi d'amnistie bi kese boo boo yaakaaree ne loi d'amnistie bi Ousmane Sonko moo tax mu koy def wala ay ñooñu Ousmane Sonko mooy moo taxoon ñu koy def. Mhm. vous vous trompez vous vous trompez maam Diarra gis nga li fi xew ba nit ñi jóg di rey ay nit ah comme ku yor ay melentaan di leen dëggaate c'est parce que dafa am impunité buñ leen digoon maam Diarra. Mhm. dañ leen promettroon impunité xam bon donc bu loolu jàllee nga yaakaar ne xam nga bon loi bii muy def defu ko lu dul gendarme maanaam général Moussa Fall ak Bokar Yabde ak ses xam nga ses euh, ses colonels et ses généraux ak ay commandants defu ko pour ñeneen taxut mu koy def maam Diarra mm-hmm. déglul bu baax gis nga Macky ba muy def loi d'amnistie mm-hmm. dugalu ci lépp loo xam ne affaire financier la def la ne deux mille vingt et li fi xew benn rek moo ci dugg ci affaire financier euh, de financière daanaka muy fond Covid dix neuf mhm. parce que bu ñu la nee deux mille à partir de deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre kon donc loolu a yow bu ñu la nee mille vingt et un ba deux mille vingt quatre looy xalaat yow pour la pour sénégalais yi ñuy déglu rey yi la rey yi la xalaat dig mooy deux mille vingt et un Ousmane Sonko mars lañ ko commencé woon persécuté di ko indil ay problème daanaka affaire yi janvier la commencé jëm février mars ñu commencé xam nga affaire yi di gën a euh, évoluer ñuy rey ay nit xam nga bon mm-hmm. loolu ñu doon rey ay nit muy deux mille vingt et moom dafa de loi d'amnistie bi deux mille vingt et un ba deux mille vingt quatre kon donc moom ministre yi nga xamante ne dañu triandé woon intéressé wuñ ko amal luñ ko sax njariñ moom dafa am lu mu digoon parce que lii boo ko déggee da ngay il faut savoir lire sur les lignes. Mhm. ça veut dire que kon dafa am lu mu déggoon impunité. léegi ñooñu it bu demee ba mu war koo yéen yaakaar ngeen li tax Macky Sall jékki-jékki mu dem ba mu war a dem di veyu élection yi dix heures ñu war a dugg ci élection yi dix heures de temps mu éliminer élection yi lan moo tax c'est parce que Mame Diarra gis nga ni mu xoje sénégalais yi la am ñu ko ko xoje le général Moussa Fall chef de la police Bokar Yade ak ay éléments ñoo ko xot fi ñu parce que amnistie bi du pour Ousmane Sonko encore une fois te du pour ay ñooñu Ousmane Sonko. Mhm. pour ñii la parce que rey yi fi am Sénégal yëpp ñii ñoo ko ñoo ko ñoo joxe ordre yi ah. te ba mhm. ñuy ji ñi ñi rey nit ñi dañu ne ci euh, Amadou Sall moom it da doon recruter ay nervi kon donc moom li muy def lu mu xam la bu leen yaakaar ne Macky Sall day nelaw pour une seconde. xam nga nii moo waral loi d'amnistie bi du pour Ousmane Sonko te du pour ay ñoñam beneen bi ci topp xam nga beneen bi ci topp muy affaire présidentielle yi allo. Mhm. oui ñu ngi lay dégg Cheikh yow rek la ñuy dégg. Ah, beneen bi ci topp muy mhm. affaire présidentielle yi. Mhm. mais Macky Sall dafa am lu mu ci wax. dafa ne man bugguma sax fekke élection yi. wax na ko wala waxu ko. loolu la wax. waaw nee na bugguma sax. fekk élection yi Macky Sall lépp lu mu wax il faut nit ñi di bàyyi xel ci yenn wax yi muy wax bi mu koy wax nan la mel dafa énervé wu parce que bi mu koy wax dafa am yoo xamante ne ba mu koy wax moom am na wax yoo xam ne bu koy wax su nekkee à l'aise c'est parce que am na lu mu lal ci suuf mais bu énervé rek c'est parce que affaire bi naqari na ko bugguma fekk élection yooyu mu wax mm-hmm. c'est la réalité Macky Sall même bu ñuy organiser élection yi en juin Macky Sall du ko fekkee Macky Sall le 2 avril mu dem bay leen ak seen seen réew. kon euh, euh, euh, beneen cas de figure bi ñuy wax ni Amadou maam Diop bu boobaa moo koy wutu ci. kooku mooy ñëw kooku mooy ñëw parce que déglu leen da di déglu Macky Sall suy wax pour nga xam li muy wax il faut nga déglu ko. parce que suy wax lu mu nar ay njublang à l'aise la koy waxee mais suy wax loo xamante ne da koy wax ak énervé bu koy wax buy génne kàddu yi day énervé. Mm-hmm. c'est parce que dafa am leneen lu ci lalu mooy loolu dëgg la ci moom Macky Sall la dee mu bàyyi leen ak seen dëkk dox maam Diop mooy continuer pour pour def élection yi loolu moom leer na nañ xam nga man bokkuma ak ñeneen ñi ni ñuy analyser quoi ak ni ñuy gisee parce que man bon lu ci bëri man damay xool réaction yi nit ki di def ak wax ci fi mu koy wax ak ban ban ba maanaam intention bu mu ci am man moom lay gën a xool pour di ko wax beneen bi ci topp maa ngi dégg ci loi amnistie yi xam nga boo euh, ni nga wax de Serigne Ndiaye léegi léegi bi mu duggee mu ngi laaj ndax beneen président bu ñëwee mën na ko dindi wala mënu ko dindi. Mhm. Mame Diarra amnistie c'est une loi comme toutes les lois. lu ñu mënta abrogé amul parce que buñ ko bëggoon a dindi tey buñ ko boolee ak yeneen affaire par référendum lañ koy jaare dañ koy dindi ba mu set wicc parce que lu mel nii xew na euh, Argentine. d'accord président bi dafa amnistié woon ay fee yoo xamante ne dañ ci rey ay nit ak yeneen affaire njaaxum yu baree bare bi président Argentine bi ñëwee dafa dafa dafa dafa dafa dafa abrogé affaire bi dindiwaat foofu définitivement loolu lu ñu mën a dindi la du loo xamante ne maanaam loi la rek boo xamante ne da koy def mais bu ko defee la tax mu koy def Macky Sall même bu waa Sénégal doon xaru ne doo ko def loi amnistie bi da koy def parce que dafa am ñu ne ci ginnaaw ñoo ne ñoo ko xoj parce que dem bàyyi leen ci musiba parce que ñoom xam nañ ne Macky Sall jeexal na ci réew mi képp kuy ñooñu Macky Sall it doo falu ci réew mi loolu ñoom xam nañ ko ba pare mm-hmm. xam parce que nit ku nekk buy wax da ngay xool la tax muy wax quoi parce que bon comme dugg naa nii maa ngi xaw a jël temps naa bàyyi bu ci kanamee su ma mënee dugaat dinaa dugaat ak yeneen affaire ok d' accord ñu ngi lay jaajëfal Cheikh 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee rek di ngeen daal di a dugg ngeen daal di wax seen xalaat ci li ñuy daal di euh, waxtaanee ñeel dialogu démb bi lan ngeen ca daal di euh, ban jàngeen ngeen cay daal di def Amidia euh, ginnaaw moom mi nga xamante tegoon nañu ko loxo daanaka lu ëpp fukki weer mu ne ci kaso bi moom nag ni ki démb dañu daal di xibaar ni rek ko daal génn ci prison ba euh, rawale ko ci douaneub euh, l'hôpital Amédiane nag ci fàttali moom la ñu jàppoon di ko toppee lu jëm ci mbirum force spéciale donc woote leen ci 88 628 73 lay seen noonu maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ñu daal di koy jël continuer leen s'il vous plaît ngeen aimer partager live bi su ko defee ñi jotagul notification mën ko daal di jot ñëw ànd ak ñun ci waxtaan bi salaamaaleykum mbokk mi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Ramatoulaye Sané Oscar dina dugg bul wax dara incha allah Oscar Siyaara moom suñu nit la day dugg léegi bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi lay jaajëfal Ramatoulaye Sané nee na nga dugg nag. waaw waaw waaw. waaw waaw maa Mhm. di nuyu internet yi 2A TV yëpp. Mhm, ñu lay fay. sama gars yi ñoom Rose Gilbert Sadbu Amadulaay ñoom Ibrahima ak Saatu Ba sama waaj. ñoom ñëpp ñu lay fay ñu nuyu ñëpp. Mhm. di nuyu euh, Aline Badara mi fi ne woon démb. di ñëw ci waxtaan wi rek li may wax mooy man noo xam naa ni dialogue bi moom sama benn xarit daf maa woo di ma kaañoo quoi nee na ma mu bi gis naa ci sa sa maam xamoo sa maam xamoo sa rakku papoot Pape Ibrahima mu mel ni kanaar gu mag ngu doon jege muy feeñ lam di dem ak sanceem bu mag boobu xam naa ne foofu bu amoon tilim dana ko rek est bu am kii yi noonu xam lu ñu ci biir ñoom la Pape Ibrahima rek ah ñooñu sa papa Ibrahima sa sama maam la quoi ah sa maam la mm. ah ñoom sañse nañ démb de kii la kii la wala kan la ci waaye yow jaara bàyyi leen kaañoo bi nag sama benn xarit damaa kaañoo mooy bëgg dee bi dugal ko ko laay ma ko. ma ne ko yow lii bi laay bés ma la gisee dinaa la porte plainte direct ah, ah, sañ sa de sañ sa na trop sa maam. wallaay <laughs> xam nga mu nekk benn affaire boo xamante ne wax dëgg yàlla moom. Mhm. Euh, ay reetaan sax ma def. Mhm. parce que président de la boo xam ne dañ day def euh, dialogue. national maanaam sénégalais yëpp li nga xam ne ñëpp moom la bokk mu foqati ko muy datu élection bi nga xam ne képp boo xam ne ni meroon nga da nga ni naa bàyyi ba ne vingt cinq février ma woon Macky Sall sama mer du ma toj du ma xeex du ma xuloo mais loolu laa koy nga foqati ni sénégalais yëpp moom la fait nga ni yow da ngay jàkkaarloog sénégalais pour waxtaan pour jàpp benn date léegi nga woo yow sa ay sa xarit sa ay mbokk sa ay am di jàmm ñooñu da nga woo mel ni Idriss Seck dama moo ci ñëwul ndax bu xoolee dialogue bi geesu gis Euh, Boun Abdallah Dionne mu ne kii sama bras droit la mu xool gis càmmoñam gis ah, euh, kii candidat am euh, premier ministre yi xam nga sax turé su sama turam dama koy fàtte Amadou Ba mhm. mu ne kii kat moom sama sama sama sama sama xarit la mhm. nga xool gis Ahmed Khalifa Niass ñi nga xam ne saa boo tëggee bu wol daanoo sax mu daw ñëw ndax président moo woote ndax day nam moo génn télé nga xool gis ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu leer na ni fii gisoo kenn ko xam te ne élection yi bu amee ñoo la war a mën a concert donc mu ne léegi ñooñu lay ñooñu lay waxtaanal pour mën a am jàmm Sénégal jàmm Sénégal ñooñu yoruñu ko la Sénégal Macky benn bakkan wax amul ci kenn muy muy grand serigne de Dakar rek ñaar grand serigne de Dakar du exemple parce que Abdoulaye Matar Diop Fa Ibrahima Diagne ñoom ñaar mënuñoo juboo ñun léegi mënuñoo juboo ba am benn njiit ñooñu nan lañ nan lañu mën a nga mën a jàkkaarloog ñoom pour nga xool Sénégal boo xam ne kenn moom moo koy jiite loolu lan lañ lay conseil dañ lay conseil Sénégal yoo xam ne mën nga ko diviser mu nekk deux comme ni comme ni lébu comme ni nekkee deux ñeneen ñi am Amar kii euh, Abdoulaye Mokhtar Diop jiite la ñeneen ñi sama Pape Am Diagne jiite la donc loolu noonu nekkul ne ñoom nga war a mën a taxawal waxtaan. Mhm. ba war a jaral da ngay xool ñi nga xamante ne ñoom la réew mi di déglu nga woo ñoom ñu ñëw donc loolu moom la président Macky Sall wax nee na après le 2 avril le après le 2 avril fi mu toll nii amul dara loo xamante ne nii mën na koo teg suñu ay loxo lu dul moom le 2 avril bu jotee moom mu dem bàyyi ñëw suñu réew nekkul ne moom moom mooy moom mooy di euh, mooy naan kii la fii teg ak kee fii nekk nangam ak nangam non nee na tànk moom jëlul dëkk ren jàpp benn kii duñ mën a jël loolu c'est faux maanaam conseil constitutionnel man naa jàpp datu élection même bu fekkente ne moom da koo jàppale président génn ne day dissoudre conseil constitutionnel ñoom dañuy tas affaire nangam sangam maanaam ñun sénégalais yi ñoom moom xamul ne ba léegi ñun kàddu gi mujj ñun ñoo ko yor kàddu gi doole gi diggantaan ñun ñoo ko yor te loolu loolu da koo réer te il fallait que mu xam ko soo ko mën a jàkkaarloog sénégalais yi loolu il fallait président Macky Sall mën koo xam maanaam hmm. lépp loo xamante ne moom mu ngi koy def am ne day tourné waat ci ci ginnaawam ay loi de amnistie ak nangam naa loi de amnistie benn loi boo xam ne dañ koy teg rek ba ah beneen président mën naa ñëw buñ dissoudre assemblée bi mu mu voté waat ñu amaat yeneen ni député ñoom bu mën na ñoo voté waat beneen moom mooy jël amnistie boobu dégagé ko teg ko fële képp koo xamante ne defoon nga mal contre le peuple population Sénégal ñu toppee la ko comme ni ni mu amee Guinée nga xamante ne ni projet depuis euh, euh, euh, Davis Camara ba léegi ñu ngi ci magistrat yeeg juge yeeg gendarme yeeg policiers yi képp koo xam ne sa loxo taxawoon na ci ñoo ngi ci donc loolu nag na xam ne loolu noonu tôt tard dina ñëwaat te xam naa li war a am ne li tax ma service Sénégal dañ ko koy parce que trois cent milliards Marème Faye Sall te loolu noonu lépp dinañ ko indiwaat yaay moom mu xam loolu ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax. dañoo xaw a xatte merci beaucoup nga nuyu ma sa maam bu baax Oscar. <laughs> jaajëf 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee rek ngeen daal di euh, mën a dugg mën a wax seen xalaat ci li ñuy daal di waxtaanee donc mën ngeen continuer s'il vous plaît ngeen aimer partager live bu baax a baax su ko defee nit yi mën a ànd ak ñun ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi ah, démb bi lañ fa tënkee ban jàngat ngeen ci daal di def mère Amidia jamono ji ma nga ci diwaanu l'hôpital